mbirum immigration clandestin mu ngi am ba tey ci biir Sénégal tey ji àllarba ji bu fukki waxtu jotee ci guddi ci la gaal bi waroon a déparé Tëngéej quartier bi nga xam ne mooy Ndépa 2 waroon a yàpp lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent immigré benn jigéen bokk ci bu 23h jotee jàpp 46 ca la gendarmerie daal di egsi soqi ay balu fetal pour dakkal tukki boobu ñu naroon a amal te jaarul yoon ñetti nit mujjee ci am ay gaañu gaañu kenn ñàkk ci bakkanam ki ci ñàkk bakkanam nag mu ngi tudd Mbaye Fall Ngom di woon borom soxna ak doom ci yàggul dara la ngénte doomam foofu ci Tëngéej mu ngi dëkk ci quartier bi nga xam ne moo jokkul kaw gendarmerie nag arrêté na kenn ku jigéen ki nga xam ne moo ci bokkoon ba jàllale ko ci Dakaaru